salaamaaleykum mbokki internet ñu ngi leen di nuyu di am mbégte ak contentement di leen jox seen wàccuwaay ci li nga xamante ni mooy weeru koor gi ñoo leen ko digoon li nga xamante ni mooy kooru kooru célébrité yi tey nag ñu ngi déplacé wu ñëw fi nga xamante ni mooy point E certifié koo xam ne yaakaar naa duñ ko présenté Sénégal moom bu waxee rek di ngeen xam kan invité ndax ndaanaan la ci biir ndaanaan yi ñu bàyyi ko rek daal di koy dalal jàmm ci walhamdulillahi allazi bi ni'amatihi wa jalalihi tatimmu salihat wa bi fadlihi tataxaqaqu maqasid alxayaati wa bi tawfiqihi tatanazzalu alxayrat walbarakat wasalaatu wasalaamu ala ayni rahmati rabbaniyati walyaqutati almutaxaqiqati xaitati bi markazi alfuhumi walmaani saaxibi nasiri alxaqi bilxaqi talaati alxaqi bilxaqi min alxaqi ila alxaqi xaqu xaqaiqin wal xaqu xaqahu wala bi wa ala alihi wa sa <laughs> nuyoo bi am na doole macha allah yaakaar naa internet yi nuyoo bi rek doyoon na ndax yaa baat yi nga tudd fii moom xam naa ne man moom ku ma ci doon jaar loolu mu ko mënaat waaw oustaz ñu gis ne nag diine ji léegi dafa commencé am beneen tournure bu mu jël mm-hmm. surtout ci réseaux sociaux yi mm-hmm. ñu gis ne parfois dañ koy jël utiliser ci contexte boo xam ne amaane na sax diine santaanewu ko ban leeral nga ñu mën a indil ci loolu euh, jamono bu njëkk ba téléphone amul whatsapp amul dara xewul woon diine daf ci amoon doole lool même bu tolloo woon ak fo sax mënoo koo xam bi si des mooy da nga daan dégg jumaa yi bi rajo commencé am ñu jël batterie di noddu ngay dégg noddu benn télé moo amoon muy RTS bi ñu gën a nekk ndaw fu añ mosaana jot yaa ngi koy xamee ci rajo Sénégal salimto minal aada mhm. foo ko déggee départ nga xam ne añ jot na mhm. parce que boobu mag ñi dañu daan yar mais léegi tey xale yëpp am connexion mhm. xale yi bu ñu amul connexion tamit këriñ jëndal am nañu fi jox nañ leen code bi diine pour man gisuma ci benn changement lu dul tey naxanteeg ndaw ñi parce que boo bëggee indi sëñ Cheikh nee na doon sa jamono moo gën doon sa jamonoy bàyyi man damay laami soog ak théâtre kat yi damay laami soog tey ku mel ni Pawlish Mbaye mhm. dama koy nax muy julli dama koy nax ni ko wax bi war a ko wax wax bi nga war a wax parce que boo ko bàyyee ñi muy àndal chaque jour rek à tout temps day jàpp ni loolu mooy réalité bi mhm. mais boo dee seetaan dama koy indi à tout le temps mhm. keneen ku mel ni moom noonu keneen ku mel ni moom noonu mais boo nee ñi bokkuñu ni ñuy dundee rek boo leen bàyyee dañuy saaraani te li may wax nekk gis nga lan la doomu aadama yoon bi nga nekk bul naago mukk ba fum ni moo gën yàlla dara safu ko ci jàmm bari na kuñ gërëm ci diine balaa ren di déwén mu def njuumte goo xam ne ñëpp bari na koy xas ci wàllu safaan ba tey déggoo ko ci lu ñaaw lu ko nit mën a joxañu mm-hmm. moo tax dama ci xaw a tey <laughs> dafa mel ni euh, question bi peut-être euh, buggoo ci xuus bu baax parce que yaakaar naa ni Sénégal moom boo waxee benn baat rek niñ koy interpréter day xaw a doy waar ba tax na rek am jox am joxe beeg delloosi bi day xaw a day xaw a indi beneen beneen cacophonie mais loolu duñ ci duñ ci insister parce que loolu noonu nekkul jubluwaay bi donc comme niñ ko waxee mois de ramadan lañ nekk mu nekk loo xam ne yàlla daf ko digle wante bëri na ci ay question yoo xam ne rek internautes yi dañ koy posé à chaque fois di laajte ndax lu lu ci mel ni ay boo wooree yan comportement la jullit wala comporté woo yoo xamante ne du yàq sa koor jullit lan la mën nay comporte mën na am comportement yu bari yoo xamante ne même bu dul koor koor yàlla daf ci wax ni rek laallakum tattaqoon dama bëgg bu ngeen woor wooree ngeen ragal yàlla mais li war jullit buy koor moom moo ko waral bu koorul lii yàq koor nag ak li wàññi bu ñu benn dafa am loo xam ne lii yàq na koor définitivement lu mel ni lekk ta mhm. tay ko lu mel ni naan ta tay ko lu mel ni njaaloo te tay ko wala sax nga sëy ak sa soxna te tay ko wala ngay xalaat sa diggante ak benn jigéen ba dara génn ci yow te tay ko yooyu ñooy yi yàq koor définitivement mhm. bokkul ak yi nga xam ne day wàññi koor lu mel ni ay lido lu mel ni ay carte lu mel ni seetaan yenn film yi te dara génnul ci yow même nga foon jigéen ju la leewul sax yàlla mën na la bindal bàkkaar mais nag yàqu sa koor mais <laughs> nag bu dara génne ci yow moom ah bu boobaa nga tay ko. Mhm. moom ñaari weer yu saf sàppa ngi lay xaar. parce que oustaz dañuy faral di wax comme célibataire yi dañ koy laajte di wax naan ci weeru koor est ce que boo waxee ay bébé namu naa la affaire yooyu noonu ba xam yooyu day yàq koor. non non loolu souvent dañuy poser question yooyu. non non non loolu yàqu koor mën naa wàññi koor yàlla nekkul buur buy détail ñu baal ma ci kàddu bi nekkul buur bu ñàkk xorom. farata moo koy tax a jóg. mais man sama gis-gisu bopp man en tant que Mouhamed Mbaye damay wax ne li ma may benn weer war naa gore suma diggante ak ko parce que doomu aadama bi nga séqal liggéey sax boo dee tardé chaque jour bi yàggee mu yàpp la mais donte mi ngi lay fay gis ni chaque jour yaa ngi xëy heure di wàcc heure amul yoon bu la jaar pour yàpp la yàlla nag mënu la may onze mois douzième mois mu ne la lenn rek laa ci bëgg mooy lu la yéwénal yoonu aljana mm. yoonu aljana taxaw nga naan koor gi tey dafa metti koor gi tey nangam mais laal la kooru daaw am na ñoo xam ne ren mu ngi fekk ci biir suuf mhm. kooru daaw ren am na ñoo xam ne mu ngi leen fekk ci lalu hôpital kooru daaw ren am na ñoo xam ne mu ngi leen fekk ci prison yi mhm. kooru daaw ren am na ñoo xam ne ñu ngi ci tàngoor bu saf-saf mhm. man gisuma ci ñun koor gu met mais yonent bi ci moom la yàlla wàccee kooru jullit ñi est que seen jamono boobu euh, ndox mu sedd amoon na est jamono congélateur amoon na est-ce amoon na est-ce que télé yi amoon na dañu daan toog nekk màkk mu metti sap-sap ñu koy woor yàlla di leen bindal tuyaaba mhm. kon ñoom ñun bu ñu gën a gore man fa laata te daal nañ daa doon nañ dégg ci biir ay waxtaani mag ñi war borom xam-xam ne moom aussi daal na woor ba ngoon sax parfois du am lu mu doon woor damay seetaan fan yi ñi ñuy waxtaan du ma sax ay sëriñ mais seetkat yi ci tiktok bi mhm. kenn ku nekk di wane ni sëriñ da nga war xaalis sëriñ danga nga war am oto ñi naan da ngay luye cité mixa nangam nangam ñaan tënkuwul foofu de mm-hmm. yàlla yonent bi la yónni daan na toog ñetti weer ci du tàkk këram te lu mm-hmm. yàlla bind yonent bee ci gën dëgg la lahu salaasuna yawman maa yazuqu ma kaana ibtu bilaalin damma mina taami mm-hmm. na toog un mois ferme bilaal boo koy may dem ko ceeb est ce que xam nga ki may wax kan ki nga xam ni balaa muy wax yàlla fajal ko soxlaam bu mu sàng romb garab yi waa kooku bu fekkee ni mën na wax ni afala akunu abdan shakura nañu ma bàyyi rek ma nekk jaam bu sant mhm. kon ñoom ñooñu di wax ñëpp ay ñaan faw am xaalis balaa nga balaa ngaa mën a ñaanal kenn ñaanal sa bopp yonent bi ñaanal yàlla def te mhm. mosul ñaanal boppam teranga mhm. kon tey koor gi ñuy ñun ak jamono jiñ ñu koy wooree xoolal ni mu est ce que daa bi nga ñëw lu indi <laughs> oto moom amul woon njëgu oto ca jooja la jamono donte am na ko mais lu war gileem gileem wala mbaam te yooyu est ce que tey ji yow li nga yëg ni mu ak ni mu gaawee par rapport ak ñoom seen jamono wala bu ma gisee ku jàmbat ci koor leen rek moo ma ci naqari mooy mhm. ñaata di ñuy fawe diine mhm. di kàbbaar di fo nan uh ah, ah, ah, yàlla wallahi ku xamoon mhm. ni bés dina ñëw nga dellu ci moom mbaa ngi wéet ak moom ci bàmmel lu jëm ci farata yàlla bor bi ci foofu waaw maa man xaafa wanha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al mawa yàlla nee na ku xalaat ne bés di nga daje ak man lépp luy fa di ci jóge boo ko defee rek àjjalaay sa dëkkuwaay da la oustaz am na solo mais balaa balaa may gën a sori dama leen di rappeler rek que ni yéen a ngi suivre Africa Press 24 ak Dakar Instant tey ñoo doxantu ñëw seet ki nga xamante ni mooy oustaz Mohamed nee naa leen kooru célébrité la ñu wax képp koo xamante ni rek yaa ngi wuyoo ci turu diine yi dinañ la seet si daal di lay ñëw waxtaan ak yow ci ay baat yoo xamante ne nii dina mën a jëriñ askan bi nga xamante ni ñooy askanu Sénégal ak ci waa bitim réew Oustaz dafa am ñetti baat yoo xam ne dañ koy faral di tudd muy lu dagan lu ñu sip ak loo xamante ni dafay yàq dafa araam est-ce que mun nga ñu éclaircir un peu ñetti baat yooyu bu ci nekk lan mooy maanaa bi waaw lu xaraam mooy lépp lu yàlla ni na ko jullit bàyyi bu ko defee mu dafa xaraam naan sàngara dafa xaraam lekk yàpp mbaam dafa xaraam njaaloo loolu mooy lu xaraam lu ñu mooy lekk lu mel ni euh, lu jigéen ñi di togge laaj laaj rawatina heure julli jot mooy euh, moom moom la ñu wax naan mu baax mooy mooy mooy euh, al makruh lu ñu sib mooy ko akalil basali wasaw mi nayyan ngay lekk soble bu ñorul wala ngay lekk laaj dañ ko sip bu ñorul mais bokkul ak loo xamante ni dañ koo baaxoo lu ñu baaxoo mooy kalab comme sol yére mhm. wala akli wala lekk fala sawaaba fii amul tuyaaba wala iqaaba fii kenn du la ci mbugal mhm. am na solo am na solo yaakaar naa ñun ñoo ko déggandoo mais souvent dañuy faral di gis ne ci biir waxtu julli bi dañu ne jullit bi bu jullee dafa war a matale julli mhm. ñu ne julli am na lu koy yàq am na loo xam ne bu yàqoo dañ koy réparer waaye julli bu nangoo bu nanguwul loolu moom yaakaar naa si yàlla la aju est-ce que mën nga ñu expliqué un peu tey ki nga xam ne dafa doon juum mu juum si julli gi nan la ko mën a réparer. waaw am na ñaari juum xanaa xamoon ni seytaane li ko gën a neex ci jullit mooy ngay julli ba réer ci julli sëlmal commencé waat seytaane ak a bëgg loolu parce que day xam ni kii xamul dara mais li gën a neex yàlla mooy juum bi jullit bi juum ci biir julli. defaraat julli gi ci biir julli te du sëlmal lu jafe ngi noonu am na tey lallaay sa di julli ba càgg juum ni xool ni nga juumloowe asalaamaaleykum ni allahu akbar seytaane ni kii day font kii mënul réparer julli sans que mu yàq mu bañ a nit mën na julli juum ci julli réparer julli ci biir julli te du sëlmal te parce que ñaara am ci julli mooy da ngay yokk mbaa nga wàññi. Mhm. parce que ñu am ci julli boo yokkee ci julli da ngay def xam ba'da salaam mm-hmm. xabla salaam mooy boo sëlmalee ba pare mm-hmm. boo wàññee ci julli nga def ba'da salaam avant ngay sëlmal mm-hmm. benn bu ci nekk nag day am cause bu tax góor di wàññi di yokk sax moo gën a yomb jigéen di wàññi di yokk parce que góor léeg-léeg mën ngaa war a tari comme tisbaar jot naaj bi tàng nga jóge ci àll ba ñëw rek jàpp kàbbaar sayram tàng ne allahu akbar bismillahi rahmaani rahim waaw man tisbaar laay julli ci sa xel lu tax ma nga fexe ba réparé sa biir julli xam nga yokk nga ci julli mhm. bu boobaa da ngay da ngay wax ci suuf julli ba sa julli jeex mhm. nga sujjoot ñaari sujjoot fekk sëlmal nga ba pare mhm. sujjoot sigi sujjootaat sigi sëlmal léeg-léeg nga gis ku wàññi ci julli ni eh léeg-léeg daf dal laal la di julli ba caag ni waa ñaari raaka la am julli wala ñetti raaka effectivement wala ñetti raaka la am période boobu bu la dalee kii nu mu tuddati euh, caméraman El Hadj Malick El Hadj Seydou Hadj Malick gis nga ngay julli ba caag ci biir julli nga maa xalaa maa ngi daan sama téléphone fu ma ko teg est-ce que man nangam naa ba xamatoo ñaari rakk nga am wala ñetti rakk nga am bu boobaa da ngay jàpp li gën a néew hmm. da nga naan ñaar laa am hmm. bu dee da ngay xalaat benn nga am wala ñaar dangay ngay jàpp ni benn nga am mais boo julee ba sëlmal da ngay sujoor siggi sujootaat siggiwaat loolu la ñuy wax xabla ba'da ba'da salaam ginnaaw boo sëlmalee ba pare hmm. nit ñi xamuñu xabla xabla mooy avant ba'da mooy après Mhm. noonu lañ am na solo oustaz am na solo xam naa ni waxtaan bi buñ ko toppee du jeex te yaakaar naa kooru célébrité lañ wax mois dara de ramadan lañ nekk kenn amul jot temps bi du ñu ko may ba tax na lu ñu am ci suñu invité rek dañ koy barkeeloo yaakaar naa lii li leen indiloon tey ci seen kooru célébrité ñu bàyyi la rek nga daal di tàggoog mbokku internet yi ba beneen yoon incha allah. maa ngi di la ziar ak tur bu neex mi la la Aïcha yàlla gën la amiin sama njaboot la bokk. yàlla sàmm la. di wax ni nañuy góorgóorlu wàññi yàqante der bi. Mhm. wàññi gis ku ne ci yoon mu jaral la nga fay jigéen ndax lan kooku daf lay déranger. Mhm. fexe ba jigéen jooju wili pand ci gor boobu benn mbir. Mhm. boo xamante ne te yàq nga ko àddunaam wala ay mbokkam xeeb nañu ko ci. gis nga Seydou Hadj Malick jub yombul de. yàlla nee na falaatu sa ko an wa huwa aalamu bi man ittaqa bu kenn fëgg sa dënn ni baa maa baax Mouhamed Mbaye bu leen ko gis ak ñetti ab doom ba jàpp ne dafa yiw yàlla rek moo xam jaamam balaa ngay xam ki baax ak ki bon nañu dajeeg yàlla yow ma la xiyaam ñi maa ngi lancé képp koo xamante ne tey moo xam da ngay def tiktok moo xam da ngay feeñ télé beneen góorgóorlu di gën a fegu ndax am na koo xam ne yaa ko xañ jàmm xañ bi nga ko xañ jàmm nag dina ko jaral mu dem ci jigéen fay ko fexe ba mu wan la mbëggeel te bëggu mu ko jox nit santage ko mhm. moom ñu fay ko mu dem mhm. te dinaa la xamal dara nañu moytu di weer jullit ñi mhm. wallahi ku bàyyiwul weer sa moroomu nawle balaa ngay dee yàlla dina la weer yonente bi nee na in lam boo amul kersa fas naa ma ci te defal la neex beneen bi maa ngi koy lancé ñi nga xamante ne ñoom la ñu woowee ay sëriñ dañu ne ci réseaux sociaux yi mën fen pire mën dëgg la laajal maa ngi leen di ñaan kenn ku nekk Eh. bu dee da ngaa mën a seet rek mhm. pour seetal kenn bàyyil ba ñu woo la mhm. bàyyil doomu jàmbur ji nga nekk di yàq deram bàyyil doomu jàmbur ji nga yor sa sinab di wax ci moom mhm. kenn ku nekk buñ waxoon sa ayib mu naqari la kon téyel say ayib bàyyi nit ak ay ayibam ba yowmal xiyaam yàlla xam nu ko neex mu àtte ak jaamam maa ngi jégalu ñëpp ci kàddu yi waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu am na solo lii moom duñ ci teg dara xanaa di leen jox di daje rek ci beneen numéro jaa ngeen jëf